jublaay bi rek mooy setal armeel yi ndax suñuy yaay suñuy baay suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët ñoo fi tëdd te kër gi mooy këru dëgg am CPDR département moo ñu dimbali nous avons besoin de 10 hectares am na fi autour à péage fa jaar terre bi fa la jaar Batalo Joola ma nga fa jaar pour nag la commune Tivaouane Diacksao Diamaguène Sicap Mbao sonn nañu en tout cas ñu ngi jaar fi ñu war a jaar bu mënul sotti nag am na yeneen voies yoo xam ne yaakaar naa fa jaar te loolu bëgg suñu doom dañuy dee suñu baay dañuy dee te ñëpp mënuñoo dem Touba ñëpp mënuñoo dem Tivaouane am ñoo xam fii la ñuy yem il faut ñu ñu aider ñu dimbale ñu li ñuy defal Pikine ñu xool leen 2 hectares nous avons besoin de 10 hectares. dans la forêt collectif bi day ànd ak population Diamaguène si Mbao ak Tivaouane Diegsaw ñu def bay bi léegi nag dañoo dem ba rendre compte que ni almaire fees na mënatul jël kenn ñëpp ñoo ko gisandoo difficulté ngay am pour mën fi gas sax pour jent si néew.

jafe-jafe yu metti moo fi amoon parce que dafa nekk zone bi nga xamante ni moo gën a baa fii mu nekk si côté Diamaguène ndox yu des yëpp foofu lay nekk genre bassin la moo tax pompage bi ba léegi nii ba démb rek si moo ci mujj gars yi dañ doon pomper pour mën a mën a jafal sa tatal bi mu jaar yoon ñun dañoo woote ñëpp wuy si man loolu su amee rek xam ne Diamaguène ñëpp ñoo bokk benn objectif ñoo bokk benn yéene aussi tamit di sant bu baax suñu kilifa muy Serigne Sidi Alxuraan parce que am na taxawaay bu am solo bi nga xamante ni def na ko